ñu ngi leen di jaajëfal euh, ñu daal di soobu ci waxtaan bi ab du Nguer fi ma bëgg a tàmbalee yow waxtaan mooy démb combat royal bi am diggante Modou ak Siteu euh, bu ñu xuusee ca beneen wet gis nañ ne ñàkkum ngi fosoon na lool ci combat bi mais itam ci biir combat bu ñu ci xuusee ba ci biir biir diggante ki ngànk couronne bi ak ko bëggoon a jot di Siteu euh, naka nga ko jàngate waaw am na jàpp ne nekkutoon combat. waaw loolu jàpp naa ni bala maa ñëw ci sax damay ñëw ci. insécurité bi amoon ci avant làmb ji. ndax gis nañ benn bus BRT boo xam ne sax euh, dañoo toj benn ci vitre am. Mhm. muy loo xam ne dañ koy ñaaw ñaawloo wax dëgg yàlla nag euh, sénégalais yi war nañ di xoolaat seen bopp bu baax a baax a baax parce que nag bu dee dëkk la boo xam ne su ñu nee population bi fi nekk matiruñ wala nangam wala kenn kenn kenn jëkkati baat daan askan wi nangam. Mhm. Euh, ñu ne naw da leen a saaga wala da leen a xas mais même askan boobu ñuy wulbatiku di def lu noonu. ça beneen affaire lay doon xëy imaginel tey boo toogoon exemple laa jox tey boo toogoon nga ne. Hmm. askanu Sénégal wala nga ne euh, ndawu Sénégal yi comme ay mala. Hmm. xam nga da leen di naqari mais c'est-à-dire que yenn actes yi mala la. maanaam boo doxee tuuti di nga gis luy mën a firndeel. merci beaucoup te boo waxee dañ naan non kii dafa saaga ñii dafa fekk bu xoolal da ngay dox tuuti rek nga gis acte bu mel noonu c'est-à-dire bis bu ñu defar ba mu baax. Hmm. def ci ay millions ah. ay milliards sax. mais yow sa mbër bëri ji lan la joteeg bis bii romb. dara maanaam ay act la maanaam am na loo xam bu ñu ko waxee nit du caage ne nit ki loolu la mais acte yi muy def ay acte bar barbarie la ñuy wax wala hmm. maanaam parce que da gis ay acte la ñuy àttee nit hmm. acte yoo xam ne war nañ ci bàyyi xel ko quoi luy maanaam mbir bu ca yoonam newul yoonam newu ca hmm. mbër mu bëree sa mbër bëri na daan na sa mbër bëri na daanu na loolu wax dëgg yàlla intérêt bi Sénégal yëpp bokk nag waru tax nga laal honnêtement nag pour ñu waxante dëgg rek. Hmm. te loolu gouvernement moo ci mën a jël ay ay mesures fermes nag. justement hmm. parce que mooy alalu jàmbur wala alalu réew boobu ku ko yàq da nga ko war a fay. Hmm. boo demee ba nag amoo loo ko fayee ñu dem corriger la mais am na loo xam ne yàq moom fay dong ci jaadu. fay kese moo ci jaadu. même au delà de yàqum bus bi gis nañu aussi bu làmb jotee ni ñuy. tegee fitna askan wi alali jàmbur yi alali jàmbur yi ñu jël di ko nangu amatoo droit dem Yoff wala amatoo droit dem. Pikine amatoo droit jaar fii. waaw maanaam di nangu alali jàmbur. Hmm. loolu ba kañ tamit te boo jékki-jékki woon jël ay mesures suspendre làmb ñu ne noo culture bi naa yow te yow culture bi am na ñu nekk ci biti di ko yàq du yi nag. mbër yi moom ñoom bu ñëpp meloon ne mbëri problème du am. Hmm. waaw bu ñëpp meloon ne mbër yi problème. parce que ñoom xam nañ ne seen intérêt moo ci nekk. jeex na seen intérêt ci ne mais dafa am koo xam ne moom day topp mbër bi ah daanaka day yàqal mbër mi quand même. Hmm. mais ñaata mbër lañ sanctionné fii ndax seen i supporters. waay dañuy yàqal mi. mais d'une part est-ce que ñoom amuñ ci part de responsabilité. non mbër bi amu ci mbër de responsabilité am na loo xam ne ñaari adversaires yi la quand li ñuy waxante ñoom ñaar. mënul ñàkk supporters yi seen yoon ne wu ji fayeeku wuñu joxuñu leen sponsor joxuñu leen dara hmm. mais au moins nañ xam nga nañu defaraat ji koy làmb taar na ba pare. mbër yi ay noobu lañ mbër yi or làmb ji rek nga leen di gis ju takk ay biling biling takk fii mais boo leen gisee or làmb ji. Mm-hmm. mais nit gënu leen nite. ñun dañuy daje ñoom ñun ñoo bokk ak ñoom société bi. Mm-hmm. mais biir làmb biir làmb la. mais nañu defaraat maanaam toogaay maanaam ñi topp mbër yi nañu dimbali mbër yi. maanaam làmb mën na am ba jeex ku la neex fu la neex. dem la neex fu la neex jaar xolal dañ ko def comme xolal da ngay gis nawetaan non ngay gis sax football ligue ligue professionnelle. da ngay gis ñaar ñi far ñu toog nii. Mhm, di waxtaan naanante naanante café bokk yëpp toog làmb ji euh, match bi jeex ñu ànd dem. mais Sénégal loolu loolu loolu dañ ko fi war a fexe moo nekk fi nag it mhm. parce que bu ko jaree ay correction mais état bi na ko def. oui cest dajalee acteur dajale yëpp wax leen li mën a ne. da leen di wax li mën li nga xam ne moo mën a ne mën a continuer ndax ñu chaque dimanche nit ñi bu ñu waree liggéey. nit ñi war a wàcc war a ñibbi nit ñi war a am dem seeti seeti bokk mais duñ ko hmm. mën. waay loolu mënta ne mënta continuer te senegal benn maas benn bomba gi fi buy nelaw boo xam ne. mooy Ousmane Sonko yeewoon na ko. Hmm. mooy bomb jeune ndaw ñi. Hmm. seen jot dafa bari. exactement dañoo amul liggéey. bàyyi boobu luñ mën a def ci góor góorlu ci xëyu ndaw ñi ñu def ko parce que man gis nga fuul bi ma gis ñu topp Modou Lo démb jaar nii. fuul bi ma gis ñu topp Siteu jaar nee. ku mu yéemul. man yéem na ma.